وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi am mbégte bu baax daje ak suñu mbokki taalibe ci béréb bu bi di néegu borom bi subhaanahu wa taala ramadan al mubarak di ndokkeel ak sant bu baax mbokk yi nga xamante ne bi ñoo amal lii te boole ñu ci ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ni ko mbokk mi waxee sëriñ xaadim Jóob delsi nañu ak yéen rekk ci beneen bind wu bees bokk ci mbind yi ñuy jàllale fii ci daara ji waaye di ko jaarale ci almasjidul jaamiu muy waxtaan yi nga xamante ne junj ne ne dañ koy def ci weeru koor yépp te ay boroomi xam-xam di ko def donte ne bokkuñu ci sax waaye dañuy jiim rek tey na comme ni mu ko junjee ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci dunduk jigéen buñ doon firi liñ wax dañ naan démb ak tey liñ jullu ci démb mooy li jigéen dund te booba islaam ñëwagul li jubli ci tey jigéen lépp mooy li mu li muy dund te fekk islaam ñëw na mu koy dund ci biir islaam noonu mu ko waxee incha allah di ñu bëgg rek def benn taxaw seetlu bu ndaw ci nasxaa bi mu wax muy cosaanam jigéen kenn la ko bokk ci nit ñi ñu bani aadama kon aadama alayhi salaatu wassalaam moom mooy cosaan moom mooy masdar bi aslu kullu ci aadamu wa huwa min tiini turaabi faalamu daa mel ni lu mel noonu la sëñ Tuubaa wax ci nax ju xada alxaaj nit ñëpp ñu nga bàyyi ko ci aadama aadama nag moom yàlla nga ko sàkk ci ban kon bi ñu xamee ne aadama borom bi subhaanahu wa moo ko sàkk waaye ci coobareem tën ko mu nekk ab tën mooy lu amagu ruux ci benn fatara zamaniya boo xamante ne bu soob borom bi subhaanahu wa la mu dem rek ba si yàgg rek mu am lu mu ëf ci moom te mooy ruux aadama doo ko mën a commencé di am yëg-yëg di mën a yëngutu di mën a wax di mën a dox di mën a déplacé wu di man di man yooyu nga xamante ne bii xarakat badaniya la ak aqliya waaye ruu di ko di motoor bi di ko di ko doxal fatra boobu nga xamante ne aadama dund na ko moom kot ab diir la boo xamante ne bii buñ ko doon melal dañ naan aadama dund na ko dundiinu goo xamante ne bii li ñuy tuddee euh, xibta tabiya euh, amu ko woon man a amul lu muy xemmem fële wala lu muy bëgg fële wala lu muy euh, jëgaani fële wala nàngam nangam wéetaay nga boobu wala ñàkk iraada boobu wala ñàkk raxba boobu lu tax mooy dafa amuteen wéttal borom subhaanahu wa mu soobaat ko mu sàkk ci moom ca côté càmmoñ ba te fare féete càmmoñ la ca yàlla sàkk loola sotti jaagar jaagi taxaw ci booru euh, aadama aadama ne tudde naa ko awa sammaytuha hawa li annaha umm kullu hay mu ne tudde naa ko awa ndax mooy yaay lépp loo xamante ne dafay dund kon léegi liñ ñu wax couple muy saw jaay ni aadama mi ngi fi xawa mi ngi fi kon wéetaay wa dañ na léegi am na lu muy bëgg am na lu muy xàmmeem am na lu muy am na am na am na ila loolu nag suñ ko seetloo ba seetantal ko moo boole kon aadama awaa ko boole moo ko mottali ba tax na na ci ñi nga xamante ne dañuy bind waaye yoruñu xalaatu bind ci islaam ñoom seeni nazariyaat lañ gis xëj na mën nañ leen a ay falasif mën nañ leen a tudde ñuy xalaat di bind waaye lañu bind du nekk islaam ak li ñu bëgg a wax nii buñ ko daan laltaay te di ko laltaay ci seeni xalaat dañuy jàpp ne ñoom jigéen amul solo jigéen amul solo matul du dara waaye toujours rek dafay ñëw ngir li am ci ñoo xamante ne dañ koo jàppe ci li ñu tuddee du luga muy naxwu grammaire ne jigéen buñ ko deen jàpp ci euh, xawaidu luxal arabi ci te muy naxwu dañ koy jàppe ne moom xabar la xabar nag du am njariñ benn yoon nda rek mubtada dafa ñëw mubtada mooy ñëw ñàkk cëslaay wala ñàkk wéetaay na aadama wéete woon awa ñëw nekk xabaram mubtada mubtada bi mooy aadama awa di nekk xabar bi ñoom ñaar ñu farme wu nekk jumlatan ismiyatan ismiyatan afadat maana ma maanan yox yuxsinu sukoon aley su ko defee donte ne ñoom sax ba ñuy xalaat ca loola xalaatu xeeb jigéen lañ ko doon xeebe waaye teewul sax seen wax joo itam boo ko càmbaraatee dëgg dëgg dana wér ndax wax nañ aadama lim daj ci diggante boobu ci weetaay lim daj ci dund comme xele bu ndaw ayaat bi ñu doon dund neen ayaat tufooliya la yaa ngis katif bila iraada wala raxba kon kooku nag ki ko yóbbu jële ko ci ayaat tufooliya yóbbu ko ci albuloo yóbbu ko ci iraada yóbbu ko ci xibta yóbbu ko ci raxba ah kooku wax dëgg yàlla am na taxawaay bon ki ko jàppee ne ab xabar rek la daa ñëw nekk koo xamante day mottali jumla ismiya bi loola xalaatam la waaye mën nañ caa dégg leneen lu lu wuuteeg la mu cee dégg ñeneen ci ñoom itam jàpp ne moom jigéen te cosaan li di xawaa bi borom bi subhaanahu wa bindee aadama moom bi mu ko tënee di ci ëf ruux ci moom jigéen fekkewul lool ñoom nee nañ jigéen mosut nafxatu ruux loolu tam ci xeebeel gi ñuy commencé di xeeb jigéen di ko saboote di ko wàcce yenn wàccuwaay yoo xamante ne du wàccuwaayam ñooñu am nañu xalaat ne jigéen mosut loolu waaye lenn la rekk loo xamante ne dañ koo jële ci góor tàllal ko mu tàlli nekk jëmm di Hawa ndax ci faaru aadama lañ ko lañ ko jële am na itam ci ñoo xamante ne bi ñoom ci seen gis-gis nee nañ jigéen moom xalifatu seytaan la maanaam dafa coale coalisé ak seytaane maanaam dafa lëkkaloo ak seytaane ba tax na li ñu dal lépp ci coono ci liggéey ci dee jigéen mooy mooy mooy mooy mooy sabab si lu tax ñu wax lool nee nañ Hawa moo xiirtal aadama ba bu leen yàlla sàkkee te sàkkee leen ci àjjana bàyyi leen fa àjjana jox leen xuriya muy liberté déplacé wu ci àjjana ak jëfandikoo fa lu leen soob waaye ba mu des benn garab bu mu leen tere garab googee suñu borom terewan leen te ñuy mujj ko jege wala ba doon ca jëfandiku ñi nga xamante ne ñooy xalaat te seen xalaatu islaam nee nañ loolu euh, awa moo provoqué aadama ba mu lekk ca garab ga wala ba mu jëfandiku ca ba tax na loolu moo tax ñu génn àjjana loolu itam moo tax ñuy mos li nga xamante ne bi mooy dee loolu nag wuuteeg li nga xamante ne bii mooy li am dëgg-dëgg ndax buñ dee xool sax ci wàllu jëfandiku ga xawaa moo ca gën a xaabaabal ndax moom la mu na witt daf kaa daf kaa jàllale anam euh, xewlu na ca lekk na ko aadama nag la mu na witt moom sex na ko doon na ko waaja mën a jàllale wande jàllut ndax suñ boroom moo yebal malaaka jibril alayhi salaatu wasalaam mu ñëw njëkkalanteeg moom bés ko ba ci côté boulon bi ak marian bi ba la mu seta la mu sexan génn moo tax ngay gis yenn góor yi di am fii benn li nuroog picc bu fi nekk ñoom dañ ko doon ci suñu maam Adama alayhi salaatu wasalaam ci xoj googu nga xamante ne moom la ko malaaka mi xojoon ba loolu mën a génn waaye gis nga ni jigéen ma lekkoon itam la mu lekkoon loolu moo nekk liy sensé di muy li muy gis par weer muy dawru saar nga xamante ne bii su ko matee gis da koy gis weer wu nekk su fekkente ne feebarut ba feek muy dem ci sinul yaxs da koy gis ngir itam intixaaman ci tooñ googu nga xamante ne bii moom la jigéen tooñoon ca loola loolu nag mbokk yi moo ñuy dugal ci ñu wax jigéen coono yi mu daj avant islaam yi mu daj fu ne doyadal nañ ko fa toroxal ko fu ne fitnaal ko fu ne xeeb ko fu ne génne ko itam ci li nga xamante ne bii mooy société bi génne ko ci ak ni ak nite wante yóbbu ko ba di ko jëfandikoo ni ñuy jëfandikoo mala yi te incha allah lool dana feeñ ci tomb yi nga xamante ne moom lañ rëddal loolu mu nekk tomb incha allah par tomb waaye biñ ciy jëkkee rek mooy li nga xamante ne bii moom moom lañu ñu xamoon mu di ko ñu di ko tuddee taaddudu sawjaat laata islaam di ñëw àdduna bi yëpp comme ni ko mbokk mi waxe léegi adaaraat yépp yëpp mujtamaat yi yëpp dañ ko doon dund waaye su ñu ñëwee ci faram-fàccee dinañ gis ne benn benn système boo xamante ne bii arrangé woon na ci jigéen ba jox ko loo xamante ne lu tolloog yelleefam la wala lu mu yeyoo amul waaye lépp lu ko doon doyadal la lu ko doon toroxal la lu ko doon yóbbu ci alxayaatul hamajiya la wala waxsiya la waaye dara jagu ca mbokki li ñuy dugal ci loolu mooy li ñuy tuddee ashuyuu aljinsiya aljinsiya suñ ko waxee mooy an yakuna nisaa malikan aw milkan li jamici rijaal fi mujtamacin ma loolu lu lu xaw doy benn société bopp nombre góor ña fa nekk ñoo deñ ci nombre jigéen ña fa nekk maanaam suñ ko doon yóbbu ci fu sore dañ naan gox sàngam jigéenu gox ba yépp ñooy sox ñooy soxnaay góori gox ba suñ ko doon yóbbu fu gën a fu gën a jege dañ naan fami sàngam du ma sant <laughs> ndax tooñ bi lay bay waaye dañ naan Euh, famille sàngam góori famille ba yépp soxnaay famille ba ñooy seeni soxna jigéen ñi soxna jigéen ñooy seen soxna waaye su ma ko doon indi fu gën a suufee fu fu mu gën a nirool dama naan la ginaar yi ci ngunu la yépp yu jigéen ya seq ya ca biir ñooy seeni ñooy seeni jëkkër wax dëgg yàlla su ma ko doon andi fu jege rek loolu laa lay wax seq yépp daal ci ngunu li kaaf gi seq yi ci nekk yépp jigéen yu ginaar yu jigéen yi fi nekk yépp dañ leen di dañ leen di sox soxla dañ leen di jëfandikoo saa su leen soxla loolu moo tudd al suyuuya al jinsiya bu ñu ko dee wàcce nag ci par détails yi du sori torop ak bi mu làngal bi mu làngal mooy li ñuy tuddee euh, tahaddudu euh, as-zawjaat al aswaaj wa zawjaat maanaam group sàngam walla cercle sàngam góor ñi daal ñoo ilif jigéen ñi ci wàllu soxna mais nag amul denc amul can amul nangam nangam mais kenn ku nekk daal bu sa rax ba jinsiye jógee rek sa xarit sa jinsiye saa su yëkkati koo rek da ngay def loolu ñu wax làmbi golo waaw koo njëkk jote rek koo njëkk a jot rek ci jigéen ñooyu daal di daane loolu yaakaar naa sorewut ak ba ñu waxan sorewuñu dara bi topp di ñetteel bi mooy waxdaaniyatu assawjati waxdaaniyatu sawj maa taadudil aswaaj mooy lan xam nga li ñu xam ñun ñooy mooy benn waaye am soxna yu bari ñooñ nekk di ko di ko wujjee di ay nekk ay wujj waaye fii nag moom soxna si kot moom rekk mooy am ay jëkkër yu baree baree bari wala mooy am ay góor yu baree baree bari góor yooyu ñooy wujje kon kon bi la fii wax daaniyatu zawjati wa taadudul aswaaj góor ñi ñoo bari jigéen ñi nekk kenn gisoo nga góor ñu bari ñooñu ci soxna si rekk ci leen ci lañu ci la yem maanaam sañu ñu koo génn di dem di mbaraan wala ñuy euh, mbakkar fegu wala nangam nangam fa façon yooyu waaw ah, dox dox gu sew wala xam nu ngeen ko waxe xañ na lee du ñàkk eh, ay baat yu ñu ko génne léegi waaye ñoom duñ ko sañ daal ñoom daal ci kii rek la ñuy yem su ko defee eh, bi ci topp te waa moo nee na loolu wax daa nitu sawjaatu boobu maa tax du di sawjaat nee na ab système la aw doxalin la woo xamante ne bii day may góor ñu bari ñu seq benn soxna maanaam nisaam la boo xamante ne moom dafay dafay dafay yemele ay góor yu ñu xam ci benn jigéen bu ñu xam mu mel ni jigéen boobu du mën a romb góor ñooñ waaye góor ñooñ itam duñ mën a romb jigéen jooj bi ci topp mooy ñeenteel bi mooy wax daaniyatu sawju maa taaddu sawjaat loolu mu tane maanaam góor gi mooy nekk kenn soxna yi nekk soxna yu bare bari ñoo loolu nee na nisaam boobu mooy may góor gi mooy may góor gi mu yor ci suufam lu ëpp benn jigéen mu yore lu ëpp benn jabar mu yor lu ëpp benn benn jabar niki noonu mën nañ koo may itam jigéen ji mën nañ ko may jigéen ji loolu nag mbokk yi suñ ko xoolee du soriwanteeg li ñuy tuddee aaday arab wala al arabul jaahiliya ni ñu doon jàppe jigéen ci wàllu sëy ñoom arab yi amoon nañu lu ñu tuddee nikaahul istibdaa amoon nañ lu ñu tuddee nikaahul istibdaa mooy lan mooy waa ji day yor soxnaam ci këram waaye day gis koo xamante ne moo ko ëpp daraja moo ko ëpp daraja moo ko personnalité moo ko ëpp alal moo ko ëpp taar moo ko gën a baax euh, moo ko gën a bokk ci yax bu rëy maanaam moo ko gën a judd xañ na ngir mu am ca doom ju yore melokaani kooka day yebal soxnaam ca waaja ne ko soo demee nekkal ak moom dëkkoo mu lay dëkkoo mu lay soxna woo ba dara topp ko ca su ko ca dara toppee mu xam ne dara topp na ko ca su ñëwee moom bu soxna si ñëwee day toog lu tolloog weer du ñu seq dara bu noppaloo nag su ko neexee moom su neexee soxna si wala suñ juboo mu commencé di àndaat ak moom ba ba muy am doom waaye ngir mu am doom doom jooju muy am da ko yebalan ci diw sàngam ngir ne diw sàngam ci buur yi lañ bokk doom ja bu juddoo am melokaani buur wala diw sàngam ci ñi am fit la bokk ngir doom ja bu juddoo am fit wala taar wala lu demee ni ko noonu et cetera kon tam avant islaam ñoom aman nañu ci araab yi ci seeni soxna xalaat bu toll nii di ko dem di ko dénkaane ngir mu mën faa jële doom ju mel ni diw sàngam loolu la tuddee nikaawul istibda am na tam lu ñu doon tuddee ñoom ci araab yi nikaawu raat sa réwut ak la ñu waxan maanaam mbooloo mu góor moo xamante ne dina ëpp dina ëpp ñett te du romb fukk loolu mooy raxtu ci ci luxa ci adat ñooñu itam dañuy seq benn jigéen boo xamante ne bii ñoom ñoo koy seq soo fekkente ne am na doom soxna si mooy xool ku ko ca soob mu bàyyale la doom ji kooka dal di yore turu baay ba yore santu xale bi yore sant kooka waaye boobu itam ci luwaay yi ñu tegan itam ñooñu bokk ci raxt yi duñ sañ a bañ ku ci ndaw si xas tànn rek ne la yaay sama baayub doom amatoo looy bañ doo ko sañate bañ ba tey ci arab ci in ci jaahiliya amoon na ñu tudd lu ñu tuddee zawaaju sixaar wala nikaawu sixaar te mooy ku góor kii ame doomam bu jigéen wala ab jarbaatam bu jigéen gisaat keneen koo xamante ne bii da ko gis ak jigéen ju mu xemmem te kooka jigéen jooja mi ngi ci ak kilifteefam mu jox ko doomam ji wala mu jox ko jarbaatam bi wala mu jox ko rakkam bu jigéen bi mu xaabil mu jox ko jigéenam jële ñoom ñaar loolu lañ tuddee weccee kenn ku nekk dem te du am li nga xamante ne bii mooy euh, maye du am sadaax loolu itam amoon na ci jaahilatul arabia amaana itam la ñu tuddee zawaajul muqaadaa wala nikaawul muqaadaa te mooy li ñuy tuddee al musaahaba mooy génn génn ànd ak ndaw si di génn doxantu <laughs> ànd ak ndaw si di dox waaw dox waaye ñoom dox googu dañ koo neewoon ndax dox gi dafa yem rekk ci léegi li ñuy tuddee al lams wal xubla am na ñu ko jàppe woon ne loolu rek foofu la mu xaadaa war a yem waaye am na ci ñoo xamante ne sax dañoo jàppan ne mu kat mën nañ koo jàllale ba waa ji di jëfandikoo ndaw si nu mu ko soobee waaw ni ki koo xamante ne dangaa dem ca jàkka ja takk jabar def can mu sëy si da ngay jaxasoo moom da ngay ànd moom ci mu itam ci indel jaahilatul arabiyya ñoom jàppan ne ne loolu garaawul ñoom daal lañ ca jàppoon lu garaw daal nee nañ lépp loo xamante ne bii dañ koo def an tarixil muxaadan waaye dañ koo def ci secret dañ koo def ci biir te feeñut loolu moom garaaw waaye nag lépp loo xamante ne daf caa fés daal nee nañ loola moom loolu lañ sikkal xam nga lu ci jagwaay juróomeel ba itam wan nañ li ñu tuddee sawaajul mubaadala sawaajul mubaadala mooy loolu ñu naan waa ji góor benn jabar la ne dafa dem ba jabar ji sàppi ko wala mu soof ko wala daal xam ni koy ko waxee ceebu jën sax suur daal day xaw a doy waar léegi mu ne gis benn waay boo xamante ne day juboo ak moom ci mu jox ko soxnaam kook itam jox ko soxnaam loolu nag loolu mubaadala boobu mu àqat lañ koy tudde mubaadala mu àqata la ci weer lañuy ñuy juboo ñaari weer quarante cinq jours quarante jours yooyu ñoo xam lu ñu juboo waaye daal ci diira diira li ñu bindante ñoom ñaar kenn ku ne da nga yóbbu sa faamu morom kenn ku ne da nga sa jabari morom di ko jabaroo nag ci diira li ngeen di ànd yëpp ngir changer régime bi xañ na plat bi dégg nga léegi su loolu jàllee kenn ku nekk dellusiwaat ca. la nga nekkoon muy dem demaat jëlaat sa soxna lii nag mbokk yi ci aljahilatul arabi am na waaye ba léegi am na mi ngi continuer ci nisaam al alcharq wal garb ba léegi ba léegi li addi laan ñu mi ngi wéy di continuer incha allah dana leer bu ñu jamono may wala temps may ñu bañ àgg ci euh, nuñ koy def foofu am beneen itam boo xamante ñoom moom lañ doon jëfandikoo jigéen lu ñuy tudde albuqa wala asifaax te mooy ay jigéen but seeni béréb yu ñu xam def fa seeni adresse yu ñu leen mën a xàmmee ay raayaat ay photo wala taxaw ca buntu ba di jaay seen bopp di jaay seen bopp ñooñee itam ci nañ ko daan defee mooy ku ca am doom ku ca am gone am na ay jigéen ñoo xamante ne bii ay saat lañ leen tuddee woon ca jamono jooja maanaam ci wàllu xam deret xam ne diw mii kii dereti diw la kii daal diw rek mooy mën a nekk baayam ñooñu su ñëwee su jigéen ñooñu su ñëwee ba xool xale bi gëstu ko ñi nga xamante ne ñoo fa doon dugg ci bërëb ñooñu doon jaay seen bopp kenn kuñ ci wax ne yaay doomi yaay pàppaay xale bi doo ko saña bañ doo ko sañ a bañ il faut mu yore saw tur il faut mu yore sew sew sant mbokk yi lii la fi islam fekk waaye islam fekk na fi li ñu tuddee nikaaxul bu xoola nikaaxul bu xoola nag bi ko fi islam fekkee yii jiitu woon yépp islam da koo sànni fële waaye jël bii di nikaaxul bu xoola mooy góor gi sañ naa takk benn ba ñaar ba ñett ba ñeent waaye kum ci mën a doon day dem ci ay mbokkam wax ak ñoom ba juboo xele bi bëgg ko mu joxe can gu ñu juboo mu ganale ko mu nekk soxna loolu tam amoon na fi inda euh, jahilatul arab dund nañ ko ñoom dund nañ ko waaye bi islaam ñëwee itam loolu moom la tànn kon islaam gis na ne bi mu fi ñëwee fekk na fii ay aadaat waaye teewut ya nga xamante ne bi gis na ne yu baax la da ko jël defar ko modifier ko indi ko ci islaam ci dugal ko ci biir kon gis nañ ne noonu la fa tëddee lañ jiitu woon ci yañ doon wax ci kenn rek mën naa nekk soxnaay jigéen ñu bari amutoon ab am na ñoo xamante ne àggan nañ ci ay téeméer am ñu àggan ci ay junni mais yooyu yaakaar nañ ne arrangé wut dëgg-dëgg jigéen itam moo tax islaam bi mu ñëwee da ko yemale ci ñeent lii wane ne islam da ko yemale ci ñeent bokk na ca euh, yonent bi aleyhi salaatu ci isnaad boo xamante ne bi ci bu euh, imaam Buxaari moo ko nettali ci isnaadam mu ne ku ñu wax aylaan ibnu salama achaxafi nee na ba muy dugg ci islaam ba muy jébbalu di tuub booba fekk na mu yore fukki soxna fukki soxna la duggaale ci islaam waaye ba mu ñëwee ba mu ko waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi da koo ne ixtar min ñooñu demal nga tànn ca ñeent kon mooy il faut rek dina wàññi juróom-benn mu tànn ca ñeent dëkkoo leen moom itam soriwut loolu nee na dugg na ci islaam waaye ba muy dugg ci islaam itam mu ngi duggaale ak lu tollook juróom-ñetti soxna moom itam la yonent bi waxan asxalaan moom la ko wax ixtar minhunna arban tànn ci demal nga tànn ci ñooñu ñeent loolu rek kon li muy wane mooy islaam a ngi wone ne kon noonu yi la war a dem noonu la war a demee léegi nag suñ xoolee xadaaraat yiñ leen doon junju ci ne ñoom kenn ku ca nekk bët bi nga doon xoole jigéen mooy bëtu bokkuloo ci bëtu xeebeel bëtu ñàkk nawloo ñooña suñ ko xoolee dana ñu gis ne la ca gën a yéeme te gën caa jommale mooy li ñuy tëdd wax dul banaat te wax dul banaat kenn ku ne xam na ne fi mu gën na tasaaro wala fi mu amee woon fi mu fa doon xawee mooy aljasiratul arab fi nga xamante ne fala mooy nekk mahdu nubuwa fa la wax wi ba wàcc yonent bi ne fa kaaba ga fa amaakin muqaddas yi ne fa ñooñu ñoo doon def noonu jigéen ci seeni aadaat lañ ko boole woon yu ñaaw yu bon ku ci am doom doom ji jigéen da nga koy gas sóol te fekk muy dund ku ñu tuddee xaysum nu xaasim mooy ki njëkka a suyee boobu mooy njëkk def li ñu tuddee waadul banaat ba mu nekk aada bu ñaaw boo xamante ne bii mbokki arabam yépp topp nañ ko ca roy ko ca ba tax na su fekkonte ne loolu alxuraan ñëwul di ko nettali mu nekk bind bu leer ci alxuraanu karim jot naa ne boo ko waxee ku am xel walla kuy xalaat day lànk wane alxuraan da ko saxal wa isal maw'udatu su'ilat bi ay sambin xutilat kon comme sax na ci alxuraan loolu wér la ñu doon ko def ci defin woo xamante ne bii ñi ko doon def dañ ci doon puukaréew ndam la daan doon ci ñoom buñ ko defee ba pare mooy àggoon na sax ci jigéen ñi tàmm ko miin ko ba képp koo xamante ne bii Euh, loolu ñuy wax euh, maanaam am doom dikkal na la da dem ca ginnaaw kër ga rek gas fa sa benn yeer mu xóot am doom ca buntu yeer ba buntu pax ma su fekkente ne la nga am jigéen la nga daal ko cay bëmax rek daal suul ñibbisi yow da am cadeau moom ndax li nga def lu rëy la ñëwoo di xabaar naan dama am doom ci jigéen waaye danga ko am ba pare. ca saasa nga daal koy sàkkal pexe loolu ndam la doon doon ci borom kër ba da ko doon tiitaroo ndax lan pourtant ñoom soo xoolee li ñu teg ne mooy seeni lay ci waadul banaat wax dëgg yàlla lay yu oyof yu oyof la nee nañu lu tax ñu leen di rey ñuy dund parce que laata bu tajlibu maxnaman wala tadfaul xaar ñaar yooyu rek la mënta andim koom mënta défendre nit mun laa tere ñu toroxal la bu la sam noon bëggee caw bu la bëggee faagaagal moom yuuxu rek nasruha bukaa'uha ñoom loolu lañ ko jàppee nee na jigéen daal li la mën a dimbalee mooy welwel rek comme welwel la la mën a dimbalee nag te ñoom xëccoo ak xeex mooy système bi ñu jaar pour seen économique jàll kon ñu ne kon jigéen kët day yokk dépasse rek day yokk dépasse comme day yokk dépasse nag su juddoo rek nañ ko dal di rey loolu mooy li ñu aaya bi nett li léegi mbokk mi waxoon na ko léegi kay ku ca nekk ca grand place bañ na la sa soxna am na doom ñu ne la mu am muy jigéen da ngay daal di commencé ñàngal ca kël kël xar kanam waaw mer di fóot waaw lu tax moo indi lii dégg bu boobaa ci góor ñi ñoom am na ñoo xamante ne nisaam bañ ca yoroon mooy rey ko ci saas am ci ñoo xamante ne nee na dañ koy bàyyi ba mu nekk bintu sudaasi wala xumaasi wala subaax yi juróom benn juróom-ñaar ñu doo ko sàkkal pexe bis day ñëw rek ñu ne yaay ji ah koddu mii kat koddu baxaw moom lañ bëggoon nga waajal ko yéreem yi gën a rafet laal ko parfum bi gën a foor parce que bàjjanam diw ca laa bëgg ñu ànd mu nuyu ko ñoom loolu lay daa def bu dee xale bi daa dem ba tollu ci asu dugg école bu jigéen yaay ji di ca kontaan trop xale ba di ca kontaan lool baay ba jël ko fekk na am na ca teen yu tëye ca ginnaaw saxraa ba bu mu wàkkali yaatalaat ko xóotalaat ko ba mu xóot mu ñëw ànd ak xale ba ba tiim teen ba ne ko hee doom kaay kaay kaay kaay xam nga papa junne doom kaay xool doom ji day sawar foog ne say xarib say jamil say chi tabii mën na ci biir teen bi pour mu gaaw yurdu bu ñëwee rek mu daldi ko cay ba max ko ca ba maxee du dem da koy maaselawaat da koy maaselawaat ak suuf ba teen ba maaselawaat ak suuf mu doog a retourné moo tax kenn ci ñoom ne saa su fàttali ko ak jaahiliyaam day jooy dem na ba bi muy dugg ci diine islaam mu ne ndax yonante bi est-ce que man su tuubee sax yàlla dina ma baal dem na ba sikk sàkk ndax bu duggee ci islaam yàlla dina ko baal li def doom bu jigéen bi juróom benn at juróom ñaaraat mu ànd ak moom dem ci àll ba di wàqil teen bi teen bi poussière bi di naaw di dem ci sikkim bi doom ji tax ko di ko ko faxasal naan ko papa yaa ngi pënd nee ay yoon yoon saa su bëggee def loolu ah xelam kiyaat ndax daa am fu mu teg fu mu tegan soxna sa am fu mu tegan soxna sa jigéen ñoo xamante ne dañ am place boo xamante ne bii dañ koy fees del moo tax sax gaawu tere doom ji ko gaaw koo rey waaye ci diggante boobu xàmmeetul jaahil yi di ko puus ko puus rek ci la dem ba rey ko ci anam googu mooy yóbbu ko ca teen ba suul ko fa nañ suula ay moroomam bi loolu amee mu del siwaat bi muy tuub lenn ndax yonent bi su ma tuubee yàlla dina ma baal nettali ko lool kon foofu àggoon nañu fa ci loolu ñu tuddee waxdul banaat ki noonu mbokk yi euh, soo jëlee xadaara bu mel ni siin xadaara bu mel ni siin mooy xaanoonu siin ñoom dañoo jàpp ne jigéen amul amul amul place jigéen daal amul place ci mbir mi amul makaan daal ci fil jinsil basariya jigéen amu ci amu ci amu ci amu ci place kon lépp loo xamante ne dañ ko koy jox dañ koy seet buñ demee bu mënta ñàkk ñu yox ko ca na mu gën a xeeboo ci na mu gën a xeeboo ñu joxe ko na mu gën a xeeboo ba tax na ñoom noonu lañu ko jàppe woon mooy amul lenn loo xamante ne bii mën na koo indi ci dund gi ni ki adaaraat yi yunaani ya muy gereg yi ñoom itam sori wuñu woon ak ñee nu ñu gisee jigéen dañoo jàpp ne rek moom jigéen day du day day dugg ci biir moomeelu góor tadxulu dim na moom talakaati rajul benn muy waajuram papaam moo koy ilif su ko rombee ci ngone ba am borom kër borom kër bi moo koy ilif su ko rombee ci jëkkër ja faatu bàyyi koog doom doom ju góor ja moo koy ilif waaye daal moom jigéen force fu mu toll dañ koy ilif te moom mooy koo xamante ne bii kenn du ko laaj xalaat waaye toujours dafa nekk koo xamante ne bii dañ ko war a ber dañ ko war a seppi ci ñi nga xamante ne bii mooy société bi dañ ko ci war a so da ko war a sori ñoom li nga xamante ne bii moom lañu ñu ne moom la jigéen mën a jariñ ci pénc mi mooy di ko jëfandikoo rek di ko jëfandikoo saa su seen daafia jinsiya wala seen xarisee xarisa jinsiya jógee ci ñu soxlawoo ko ñu jëfandikoo ko ci nu mu leen soobe ak fu mu leen soobee waaye noona rek lañ koy jàpp ni noon noonu sorewut ak ñii nu mu tuddati euh, li doon dox xaanoon bi doon dox ci Italie ñoom itam dañoo jàpp ne rek jigéen kat mooy koo xamante ne bii dañ ko war a tëj war a toog même bu góor dee toog ci sées wala muy toog ci lu kawe jigéen moom daa war a toog ci suuf moom daal daa war a toog ci suuf àgg nañ ci nga xam ne euh, comme ni ñu ko histoire jàngale wasaayilu naq la xam ngeen ne yu bees yi amutan oto yeeg saxaar yi nga gis ak euh, avion yeeg yooyu bu bu njëkkoon bu njëkkoon yi gën na siiw mooy war lu mel ni giléem wala war lu mel ni mbaam walla fas su yooyu amul dox dox tànk rek moo fa sës mais booba am na jamono yoo xamante ne nii ñuy jëfandikoo jaww ji ci di jël ay fafal naaw di naaw ci jaww ji wala jëfandikoo géej gi di ci dugal ay sufun wala euh, ni nga xamante ne bi noonu la saxaar yu gaaw yi amee nii am amutan li gën a na gaaw mooy nga war bax la wala nga war giléem wala nga war sa mbaam wala nga nekk di dox sa tànk yàlla mayen ci mag ñi nag ñuy dagg ay masaafa yoo xamante ne bii tey buñ la waxee ne fa la ñuy jógee ci seen tànk ak tànk da ngay waaru man fa ma dëkkoon ci booru Bambey la te sama maam daana wax ne ma dama daan xëye daar mu si yenu boot sama doom yenu sama bi yen ñëw ci dëkk bi boo bu la ko waxee daanaka bu doon bu doon keneen a fa jaar rek da nga naan du dëgg waaye comme moom moo toog ne la def naa ko doo ko mën a saña bañ waaye ñu jàpp ne wasaayal noonu la de noonu la xawoon a jafe foofa nag bi doon dox ci Italie ñoom li ñu jàppoon mooy jigéen du war jigéen mu war warta mos nguur bu dee daay voyage ànd ak baay bi baay papa ji mooy war suy voyage ànd ak doom ji doom ji góor ji mooy war suy voyage ànd ak jëkkër ji jëkkër ji mooy war en même du yem ci dox kese mais dañ koy boole di ko yen ay ay yen ay yen mooy yenu bagage mooy yoonu bagaas yi loolu mbokk yi bokk wuute wut ak li suñu mbokk yi doon dund ci Égypte ci ay 1960 wala lu ko gëna jëm kaw ci seen nisaam boobu nga xamante ne moom lañu amoon ci ay xuraafaat la wala yu kenn xamul la ci di ko jox jigéen ab ab kii nu mu koy tuddee ab xiig boo xamante ne bii pour ndox mi maanaam wax li ñuy wax saawaan baawaan ci ba waa dëkk bii mën koo jariñoo il faut at mu jot ñu tuure ko jigéen bu boo xamante ne bii jigéen bu tuuragul dara la mooy jigéen boo xamante ne bii xamagul sëy loola vraiment boo ko xoolee metti na ba ci jamono yi Omar ibnu Omar ibn Khattab ci xilaafa Omar ibn Khattab jort naa ne ci taarix ci la mbir mooma sansé ca ba fa Amr ibn Xaas nekkee góornóor ba xew-xew boobu naa ne xew ci ay jamonoom la ne moom balaa mën a jiite lu mel noonu il faut mu tàggu ci kilifaam ah il mu tàggu ci kilifaam muy Omar ibn Khattab mi nga xamante ne bii mooy nekk ala rasi jamaa al islaamiya ba ko amru ibnu xaas bindee leetar wax ko loola omar moom ba muy tontu tontu amar amru ibnu xaas mu basaratan waaye naxaru nii la tont bind ko leetar ne ko boo demee sànni ko ca dex bon ba tax na ba mu ko ca sànnee ca la dex ga noppee def loola mu daan def tax benn woykat ne karamatul wali xaqun wa zahar minha eh, xaw ma num mu ko waxee ba ne eh, ka risale omar li nay li misra wa sima wa saariya minul kalaam fil bilaadi naaxiya waaw yu mel noonu façon yooyu donte ne jum naa ci bayit bi xaj na mais li ma bëgg a wax rek mooy waykat bi dafa wax ne karamatul wali bokk na ci ñaar yoo xamante ne mën nañ koo jàppal yépp ne omar moo ko def di xutba ba si yàgg mu dagg xutba ba di répété ci biir xutba ba yaa saariyatal jabal yaa saariyatal jabal ba ñépp foog ne xanaa Omar tey xel mi dafa dafa nekkul coocu loolu karaama la te booba mu nga doon dégganteeg zaariya ca réew yu sori yoo xamante ne fa mu war a jaar mook akam ab lélem moo ki soldaaram bu fa jaaree noon yi mën nañ koo faagaagal mën nañ koo jekku moo tax mu ko doon moytaliku lool booba yaakaar naa ay whatsapp ak yooyu amagul ak yi xew ni ay portable waaye teewul nag mag ñi ñoom daan nañ jokkoo mag ñi moom dan daan jokkoo moom mag moom dan daan jokkoo ngelaw rek la ngelaw rek nga wax mu dem wax itam ñoom itam dan daan waxaat ku sori moo tax Omar itam ba mu bindee la mu bind jox ko loolu daf ci dafa daal di taxaw kon bu ñu ko dee xool daal ci ñooñu nga xamante ne ñooy euh, réew yooyu moo xam nisaam ci euh, ci noonu ñoom ñëpp dañ doon jaay jigéen dañ ko doon bundaxataal euh, al yahud yi ca lañu ñi nga xamante ne bi ñoom lañuy ñuy tuddee al yunaan yi ca lañu muy grec yi ak romain yi même France Égypte moo mu wax léegi ca la ñoom dañoo séddale woon àdduna bi ci ñaari pàcc yenn pàcc yi ñu ne mooy pàcc yi nga xamante ne bii ñoo am taxaddum ñoo am ñoo ñoo nekk euh, mu tam ñoo ñoo tamaddun ñoom daal ñoo évolué ñoo set ñoo civilisé ñooñu bu dee ci côté réew yi lu mel ni Hind la Siin ak lu mel ni Iran bu dee ci yeneen. ñi nga xamante ne ñoom ñoo xaw a nekk ay kaw ko wala civilisé wuñu wala du ñu ay nandite lu mel ni bilaadu Ifriqiya ci lañ ko boole ak Australia ak lu mel ni al Amérique al Xadima Amérique dans l'époque ñoom noonu la ñu leen jàppe woon kon mbokk yi yaakaar naa liñ ñu fi wax lépp ci te dañ koo tënk ci gàttal amul ci leen loo xamante ne enracé woon na jigéen kon jigéen jooju nag bi islaam ñëwee moo ko boole ci société bi na ko nit nga koo xamante ne da ngay ñëw pour mottali góor nit nga koo xamante ne da nga ñëw pour jël sa wàll ci sa miraas nit nga koo xamante ne da nga ñëw pour joxe sa xalaat ci loo war a joxe sa xalaat nit nga koo xamante ne da war a ñëw fépp fu góor gu baax nekk jigéen ju baax nekk ca kanamam nekk ca ginnaaw moo tax bi islaam ñëwee muy risalatu muhammadiya daawaam gis nga ne ki ko njëkk wuyu mooy sunu yaay xadijatu bintu xuwaylid mu wuyu ko ci wuyun wu rafet te gis nañu ne bi ko yonent bi denc boobu yonent bi ñaar fukkaat ak juróom la am soxna si magee ko lu mat fukki at ak juróom bu dee jiwuma ci sama euh, muraaja siira lu léegi mu dund ak moom itam lu tollook zamaan wa ashrun sana yoo xamante ne bii moom ak soxna si rek la soo ko boolee ak ñaar fukki at ak juróom yama amoon mooy kon yonent bi dund na ba am juróom fukki at ak ñett te bi mu dencee soxna ci ñaar fukki atam ak juróom soxna soos rek la yore loolu tam mooy wane na rek soxna si dafa mat li mu doon mooy aawa bi waaye mun naa yóbbaale place ñaareel mën na yóbbaale place ñetteel mën na yóbbaale place ñeenteel ah gaa yi mos lu mel noonu nee na jarul ñuy ñeenteel ndax comme kenn ki mën naa yóbbaale ñett yi ci des far na ñem ci benn bi rek gaa yi mos loolu ñu ko mos man nag mosuma ko wax dëgg yàlla waaye ñu ko mos nee nañu noonu baax na yonent bi tam noonu la ko jàppe woon wax dëgg yàlla ci fatara boobu kon tam xañ noonu baax na mu am ak moom itam ñii nga xamante ne mooy ak njabootam ñépp ñu góor ñaa ak jigéen ña bistisnaa ibrahim boo génnee ibrahima rek ku dul ibrahima rek xadija mooy sa ci waa bi xadija mooy sa yaay xadija mooy mooy sa yaay gis na ne kon taxaw na taxawaay bu ma sëkk ginnaaw ba mu doonee la mu doon te mat ko sëkk mooy bi ko yonent bi di denc mooy jigéen ji ëpp personnalité ci xurays ëpp ca taar ëpp ca alal loola kon mën na koo xiirtal ci mu seeti keneen koo xamante ne bii day bokk ca way oomal ya te jamono jooju yonent bi alayhi salaatu jotagul sax li ñuy tudde nubuwa amagu ko nekk rek koo xamante ne yatim la ab jirim la Aysa kenn la ci ummahatul muminin moom rek la yonent bi takk mu nekk xele mu nekk gone su ma juumul juróom-ñaaraat jëm juróom-ñett foofu lay toll mu takk ko mu ganale ko ci juróom-ñeenteelu atam maanaam li ñuy wax seetal ci juróom-ñeenteelu atam loolu tam xam naa démb sama mbokk mi doon wax ci e, taxdil taxdil nasl ñuy xeex si waajul mu bakkir muy mariage précoce bi loolu war war na ab pàttali la ci mu yonent bi bi ko Abu Bakar Siddiq di may doom ji doom ji juróom-ñaari at yonent bi yóbbu ko seetal ko ci juróom-ñeenti juróom-ñeenti seetal seetal bi maanaa seetal la wax seetal ko ci juróom-ñeenti kon yaakaar naa ñun ñi nga xamante ne bii ñoom la ñuy tere ñu dem kër mooy ñu am ay treize ans quatorze ans quinze ans ba fekk muy am dix su fi demee kër soo ko fi mayee ni ñu ko wax woon dem su la xale bi yóbboo ci yoon dañ lay jàpp su la yaay xale bi yóbboo ci yoon dañu lay jàpp kenn ku la yóbbu ci mbokk yi itam dañ lay jàpp kon loolu wute nag li islaam di jàngale xale boobu nekk ci kippaaru bi moom Aïssa di jàng di gëstu ba àgg foo xamante ne ci xam-xam góori jamonoom sax àgguñu fa góori jamonoom àgguñu fa bokk na ci rekk li ci yonant bi ne jël leen seen gan wàllu diine wala xamee leen ko ci jigéen ju xees yi ku ñuy tuddee euh, ataadam nu riba rabaa nee na aysa mooy ki gën a dégg fiq ci nit ñi aysa moo gën a ëpp xam-xam ci nit ñi aysa mooy ki nga xamante ne bii moo gën a rafet xalaat ci li ñuy tudde raayul am moo ko gën a rafet la kon loola la muy firndeel mooy jigéen la waaye jigéen ju suyee roolam ci diine al islaam la ci maydaanu jàng ak jàngale Hisaam ibnu Urwata jële na ci papaam mu ne gisuma kenn koo xamante ne dangaa gën a dégg fiq Aysa gisuma itam ku ko gën a xam ku ëpp xam-xam ci médecine waaye gisuma itam ku ko gën a mën a ëpp xam-xam ci wàllu char li tudde aroot bayaan mantiq yu xam-xam yi nga xamante ne boo ko dajale ci wàllu luxa da ngay mën a way way jaar yoon nee na la ca Aysa dajale nee na gisul ko ko ci dajale loolu tam di wane xam-xam waaye ci ñoom ba tey ci ummahatul muminin ku mel ni Hafsatu bint Abiba euh, bint Omar Omar ibn Xataab kenn la koo xamante ne bii ci wàllu mbind wàllu rafet mbind jekk xalima ñépp moo leen dàqoon a bind pourtant moom itam jigéen ju ñuy tuddee Shafa moo ko jàngal bind loolu itam di wane rek ay taxawaay ak ay yoo xamante ne bii jigéen ñi bi islaam ñëwee rek ay rol yu am solo def nañ ko te loolu tàmbaleen ci albayt muy waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye génn itam sax ñoom ñeneen di def ay jaloore nekk ay jigéen di joxe seen bakkan di jihaad di jàppale seeni borom kër di leen defa défendre ba am ci ñu ñàkk seen bakkan ngir défendre seen jëkkër ñooña Sumayata Ummu Amir imraatu Yaasir ca la bokk ci la bokk ndax moom lañ wax ne mooy awalu yi fi ci islaam jigéen di njëkk a ñàkk bakkanam ci islaam mooy Sumaya waaye daf doon défendre jëkkëram ginnaaw bi nga xamante ne bii noon bi di aboo jaxal saay-saay bi gañe na ko ba di ko rey moo di ko défendre ca la ko Abu Jahl jame ci njumtukaay goo xamante ne bii ba mu ko ko jamee daa àgg ca xol ba soxna si jaara ca faatu waxaatul xaadisi itam kenn ku ne gis na ci taxawaay bi nga xamante ne bii moom la ci alxansa def te mooy tamaadur tamaadur ci dajale ak njabootam muy am ñeenti doom yu góor wax ne leen kat suba ëllëg kat bisub bisub dee waaye du bisu dund ndax xare bi ñu takk xeex bi war a am da ngeen caa war a feeñ dangeen war a nekk ca kanam da ngeen caa war a joxe li nga xamante ne bii mooy njàmbaar da ngeen caa war a def njàmbaar gis na ne ba yàlla dogalee ñeenti doomam yooyu dem ca xare ba yàlla daa dogal ñoom ñëpp ñu des fa waaye teew da ko muñ muñin woo xamante ne muñin wu rafet la wu jekk la ba tax na aaya alxuraan di wàcc ci moom di wàcc ci loolu di àddu yaa ayuha alladina amanu isbiro wa saabiro wa rabito wa taqullah laalakum tuflihon mi ngi wàcc ci soxna soosu ak doomam yu baax yooyu kon xam naa mbokk yi ñu ngi isaara ne waxtu wi dafa fa jege kon ñu taxaw rek delloo kàddu gi sëñ Xaadim Jóob ba xam na solo jaar na yoon tegu na ci xam-xam kon mu mel ne jigéen moom maa xablal islaam dafa mel na tekkiwul woon dara wala boog njariñam bariwul woon àggoon na ci sax ba daanaka comme ni ko waxee rek ku masaana jur doom mu nekk jigéen da koy suul te loolu lu wér la ndax alquran saxal na ko wa isal mawudatu suilat bi ay sanbin qutilat kon daal ñu jàppaat itam ne maanaam diine lislaam itam ku teral jigéen la ku ko jox wàccuwaayam kon loolu jigéen ñi war nañ koo xam bu baax a baax kon ustaas ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu boroom guddal saw fan te yokk xam-xam bi bu baax a baax te may la ak wér ba lépp loo bëgg a liggéey ci lépp loo bëgg a liggéey ci diina lislaam ji nga def ko ni nga ko bëggee ak ci toolub Cheikh Mouhamadul Mourtada bi kon daal mbokk yi comme ni ñu leen ko woon ci njalbeen gi rek waxtaan wi dafay am ay taxaliqaat ginnaaw bu waxtaan wi jàllee kon duñ def lu dugg ci taxaliqaat yi mu baasara rek bala waxtu wi di woo ustaas Balla Mbeng mu ñëw defal ñu taxaliq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziar baax leen nuyu xam naa di euh, baalu ax nag di baalu ax ñëpp tam di euh, sant suñu ustaas bi nga xam ne moo doon defal waxtaanu bu am solo wi euh, jëmoon ko ci almaratu fil islaam xam naa waxtaan wu jaral wax la ndax jamono du ko laaj toujours ndax ki ñuy waxtaane muy jigéen day day day day ak wàll gu dëgër lool ci société bu nekk ci àdduna bi maanaam dafa dëgër lool ci société bu ne ndax euh, foog fekk rek mooy al umm te al umm Euh, ñaara mook al madrasa sorewuñ lool léeg-léeg sax moom moo gën madrasa kon kooku jar nay wax euh, nit ñi di ko xam moom it muy xam boppam maanaam waras naa waxtaan ci umm muy xam moom mooy kan te it ñuy xam mooy kan ndax daa mel wet googu léeg-léeg ñu dem fàtte kan la léeg-léeg dem ba fàtte moom kan la su defee ñi nga xam ne yàq moo leen tax a jóg dañuy daal di jóg ne ko yaay diw sàngam yaay yaa nangam yaa nangam yaa nangam yaa nangam fekk lañ koy wax lu koy réer lu koy sànk la kon di waxtaan si jigéen di ko leeral moom ban place la am ci société bu nekk ci àdduna bi place bi nag kenn joxu ko mais yàlla moo ko jox yàlla moo bind maam Aadama bind Hawa ñoom ñaarit mu ne mu génn si ñoom li nga xam ne mooy insaan muy nit nit ñëpp ñu ngi jóge ci aadama ak awa tubaab yeeg ñu ñuul ñeeg euh, naar yeeg chinois yaag ñëpp rek ku nit rek ku nekk rek maam Adama mooy sa maam ak Hawa te yàlla dogal ne euh, kenn si ñoom rek baaxawuñ muy am gone waaye baay ak yaay ñaaral daan def ñi mën a am gone muy góor a jigéen ñoo mën am gone waaye jigéen képp mënta am gone góor képp mënta am gone kon ku nekk am nga role booy joué ci mujtama bi euh, naka noonu itam euh, li tax waxtaan ci am solo mooy euh, ku fi baax rek ku ne ñaare am nga waajur wu jigéen woo xamante ni wi wu baax la wula wula wula wula wu sonn ci yow lool la sonn ci ay sonni saayir sonn ci ay sonni baatin liggéey lu ne pour nga jot ci loola kon kooku it jar na di fàttali rol ne ko société bi su jagee am nga ci rol mais bu jagut it am nga ci rol kon dawarul mara ci ab mujtama maanaam rolu jigéen ci ab société defar ci la bokk defar ci la bokk waaw waaye saa soo xamante ni bi rolu jigéen tardé na ci benn société rek yàq gu bëri mooy mooy juddu ndax yar day daal di manqué jikko yu baax manqué yu bëree bëri manqué te yooyu yëpp si manqué day jékki-jékki mboolam société bi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy dund loolu kenn rek du ko dund wala ñenn duñ ko dund mais société bi yëpp ñoo bokk di ko dund kon jigéen dafa am rôle bu mag am ci société ñu waxit ne sax euh, fi muy liggéeyee mooy famille mooy usra daanaka mën nañu wax ne bu dee poto bi poto bi jigéen la al abbu mën naa jàpp rek ne moom am na lu mag bu muy joué ci société bi ku ci nekk rek ñoom ñaar koo ci xool rek da ngay foog ne moom liggéeyam képp moom mooy liggéey bi ëpp solo waaye jigéen loolu am am solo lool surtout suñu société yi nga mooy société yi rôle bi mooy yar yar moo ci gën am solo yar ak tàmmal jigéen moom mooy yar mooy tàmmal tam ci ñun nga xam ne ñaare Euh, ku nekk rek am na lu sa waajuru jigéen tàmmal am na it lu la yar yàlla ne lu baax waaw nga xam ne bàyyi moom ñaare dana tabax kër indi dépense waaye ñaare li mu yar bëriwut dana joxe mu jàngi yëpp dana ko def waaye ñaare taxoo gi nga xam ne moom la yar laaj moom mënu ko ndax du toog ki nga xam ne nag mooy toog suba ba ngoon ci kër gi wala boo waxtu yu bëri moo koy toog wala sax nag moom moo ëmboon gone gi juróom-ñeenti weer di lekk lu muy lekk di naan lu muy naan di yëg lu muy yëg di bëgg lu muy bëgg di bañ lu muy bañ kooku yaakaar naa ne rôle ba mu joué rôle ba mu ca joué mu ëpp lool ba ca bàyyi di joué foofu fatar boobu moom bàyyi mën nañu wax ne amu ci benn rôle bu muy joué waaye ku ne xam ne ne bu yaay ja naanoon nam ñoolal tey gone nga mos waaw bu yaay ja lekkee luñ sàcc gone nga mos ca waaw bu yaay ja bëggee lu baax gone nga yëg ko bu yaay ja bëggee lu bon nekk noonu kon euh, yaay am na rôle bu mag bu mu joué ci xale joué boo xamante ne bii bëgg la ak bañ ba ak yëg-yëg ya moo tax loolu it jar na nit ñi bàyyi ko xel lool lool lool lool maanaam teel a waajal xale ci ay waajuram surtout ku surtout jigéen gi waaw loolu tax islaam it fonkoon lool kon rek pour bañ a bañ a guddal euh, li ñuy wax mooy jigéen daal rôlam ci société ci al mujtama rôle bu mag la boo xam ne bii amul amul lenn lu ko mën a dara mënu ko remplacer te it société bu bëgg a baax da nga fexe fexe faaw nga fexe ba say jigéen baax. bépp société boo xam ne bëgg ngaa jag rek jigéen ñi faw ñu jag waaye société boo xam ne jigéen ña euh, dañoo xaw sàggan maanaam bu ñu tey suba bu ñu fekkee jag nañ tey seen jaga dee ngi ñëw te force mu ñëw waaye société boo xamante ni jigéen ña jag nañ bu ñu jagadee tey seen jag moom force mu ñëw kon euh, luñ jar bàyyi xel la jigéen nag mbooleem mboolem ñi yàq. dañ koo soxla moo ko daw mboolem ñu yàq rek mboolem mboole yàq yu nekk rek dañoo soxla jigéen lool pour yàq ko parce que xam ne ñoom bu yàq ko yàq jigéen yàq yàq société ndax mooy école boo yàq école rek yàq nga yàq nga mujj tama bi société bi am réew moom boo ko bëggee yàq jëru ngay taxaw toj di toj taali taali biis ak daane oto jëru ko boo boo songee jigéen ñi rek ba yàq leen réew mi yëpp yàqu na danañ guerre dañ def lu nekk seen biir ndax daal commencé jagade kon ñoo ngi jégalu foofu rek di di baalu àq di sant bu baax Oustaz Gueye ci waxtaan am solo bi euh, di jégalu nag xam naa ci kàddu yeeg ñàkk jot gi wasalaamaaleykum. am yàlla suñu borom yokk xam-xam bi dolli wér gi guddal fan yi ci barke Serigne Touba kon dañ njëkkanteeg waxtu yi rek daal di woo ko ci topp muy at taalib Moustapha Diop. mu ñëw def commentaire ci waxtaan wi auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin mbokki julli yi mbokki taalibe yi naa ba ñu sant yàlla julli si yonente bi sant Cheikhul Khadim ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen baalu àq tey jégg lu baax di jël gi jël kàddu si seen jot si jotaay bi di leen tuubal bu baax a baax a baax te xam ne nekk say kanamu kilifa di fa jël jotaay nag dana xaw a metti lool tey sant oustaz bu baax a baax si waxtaan wi jotal gi mu jotal am na solo lool te képp koo ko teewlu woon ku ne da nga si mën a jàngat jàngat lu am solo kon oustaz ñu ngi lay sant bu baax a baax si jotaay bi bu baax ni ngi ko jàllalee macha allah am na solo lool kon liñ si jàllale rek du doon lu bari. comme ni ko Oustaz waxe jigéen ni nga xam ne noonu la nekkoon koo xam ne nii kuñ dooya dal la njëkk islaam nekk koo xam ne nii kenn bàyyi ko woon xel nga xam ne dooya dal gi doy na sëkk rek mel na islaam moom ba mu ñëwee dangaa nekk ku taxaw di koy xeexal ak di ko défendre ci wàll yëpp comme ñi nga xamee ne woon nit ñi dañ daan def ku masaana am doom bu dee jigéen rekk li ngay njëkk xalaat rek mooy daat kay faat am na ñoo xam sax dañ la wax ne dañ naan rey seen doom te fekk sax du faatu ñu suul ko noonu am ñoo xam ne dañ naan wax moom ah, moom jigéen du la amal benn njariñ ndax mënu laa génne si gàcca te mënu laa indi dara taw loo am mu lekk ko alxuraan ba mu ñëwee daal leen wax laa ne aw wala taqtulu awlaadakum xasiyata imlaaqin nahnu narsuquhum wa iyaahum ak waysal ma udar su ilat bi ay shan min qudrat nga xam ne loolu lépp da ak doyadal goo xam ne nii njëkk islaam jigéen doyadal nañ ko doyadal googu kon loolu tamit jigéen ñi ñoom seen wàll bopp war nañoo bàyyi xel loolu islaam ni leen génnewee si coono yooyu ñoom ban njukkal lañu war a delloo islaam daa mel ne islaam da leen jariñ lool te ñoom seen njariñ si islaam daal di néew lool kon loolu ab soññ la ci ñoom ñu war cee bàyyi xel bu baax nga xam ne bokk na ci doyadal googu noonu nga xam ne dañ naan wax naan jigéen ñi ku am doom sax da ko daan wax naan ko mu dem luyente nga xam ne danga nga naan ko demal nga nga njaalo nga am nangam nga indil ma ko nga am loolu bokk na ci doyadal googu ak ku masaan am soxna saabu la neexee nga fasa ko donte da nga koy fasa ba mu mat téeméeri yoon sax nga jëlaat ko loolu lépp ci ak doyadal ba islaam ñëwee di ngeen ab abqadul alaali ilallaahi attalaax kon loolu ak fonk gu ko islaam fonk la ak bàyyi xel gu ko islaam bàyyi xel kon moom war naa góor góorlu ci loolu bu baax delloowaat njukkal islaam ak teral gu ko islaam teral moo war a góorgóorluwaat ci lépp loo xam ne nii li lislaam santaane ci ndigal yi ak lépp loo xam ne luy teral la góor góorlu ci tey bàyyi xel loolu bu baax a baax kon loolu te islaam dàmmale lim ko def loo bariwut laaju ko laaju ko alal xarewóolu ko liñ ko laaj moom bariwut ndax comme ni nga xamee ne ni noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe jigéen gi moom na war weeru koram julli julli juróomam daal di topp borom këram bu dem bu noppee loolu nga xam ne loolu rek lañ ko sant nekkul loo xam ne nii lu diis la kon loolu li mu tegtale mooy mu war naa war naa bàyyi xel war naa bàyyi xel loolu bu baax a baax nga xam ne kon ni ngi gàttal foofu rek tey jéggalu bu baax si ñàkk jotal gi ak ñàkk jubal ciy wax ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax sax ñu ngi sant bu baax ci waxtaan wi macha allah yàlla na suñu borom sàmm. bàkki Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf. waaw ah, kay jërëjëf sëñ Moustapha yal na yàlla fay la aw yow tabarkal la tabarkal sëñ Tuubaa kon oustaz bu ko defee mu mel ne am na fi ay laaj yoo xam ne dafa rot bàyyi ko ci mbooloo mi doon la ñu fàttali itam ne képp koo xam ne déggoo sab laaj rek xamal ne waxtu bi moo ñu xoj waaye am na ab jotaay boo xam ne dañ koy jagleel wàllum laaj ak tontu rek mu ko defee incha allah danañ ko si yóbbu suñu mbàkk Abdourahman di ko amal oustaz laaj bu njëkk bi kii dafay wax ne lu tax maanaam jigéen toujours ñuy wax rek ne am xelam dafa des moom ku néew am xel la ba noppi ànd ak loolu lépp suñu borom di wax ci alquran naan inna kayda kunna azim nee na loolu noo ko déggee bismillah waa jërëjëf ci mbokk moomu ak laajam bu am solo bi mu laaj e, jigéen ñi wax ne amul xel ñooñu mooy ñi doon wax sàng mooy ñi koy tuumaal ñi nga xamante ne bii nanguñu koo jox palaasam wàccuwaay bi mu am nanguñu koo gis ñu ne ni ween wi di sëgge ñoom noonu lañ jàppe ne noonu la xel mi sëgge wante xel moom leneen la xel moom leneen la euh, bu dee saka muy muus walla mën a capter dara tey bu fekkoon damay dellu ci euh, ci ci ci ci ci école bi maanaam mooy dellu ci classe yi walla may dellu ci euh, ci jàngu bi damay wax ne jigéen ñi toujours saa suñu bokkee ak góor ñi ay leçon yoo xamante ne leçon yu ñu war a mokkal la jigéen ñi ñooy njëkk a mokkal maanaam bu dee suratul hifz jigéen moo ko gën a moo gën a gaaw mokkal xañ na la muhafaza waaye téye ba garde ba <laughs> garde ko pour mu sax loolu leneen la xóotuma ci torop mais ci ay gëstu ci xam-xam boo jëlee matière bu mel ni ki riyaadiyaat waxuma ala mustawal mahad waxuma mustawal <laughs> bilaad mais ci mustawa àdduna au niveau ci àdduna bi gis nañu ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko gën a neex a jàngal muy jigéen ñi ñoo ko gën a mën a xam ci jigéen ñi ci lañu yaakaar naa lu mel ni mat nag ku ko mën a xam sam xel neex na bu dee mokkal itam ñu nga di ko séq ko góor gën leen gaaw a mokkal sam xel neex na inna kayda kunna azim euh, loolu day day dafa nekk maanaam ngànnaay jigéen wax nañ ko sànq comme mënta dóor mu daanu euh, mënta euh, jàgg jàgg jàggi ruut de sa kon force mu am lu ma am nag force mu am lu ma am li mu am mooy pexem moom pexem mu feeñ na ci mawxif bi xadija taxawoon bi yonent bi jotee nubuwa gi alxuraan wàcc mu ñëw di def ay affaire boo xamante ne bokk bokkut ak yi nga xamoon mu koy mu koy def donc loo loolu moom xadija am pexe la jëfandikoo woon muy def na ñaar mooy ne mu ngi doon génne muuraay gi musóor gi pour xam liy diggal yonent bi ndax ci ci ci ci dëgg la bàyyi ko wala ci neen ndax su dee ci dëgg mooy ci yàlla muy malaaka du lu sel malaaka du gis awra du gis bopp jigéen day daal di dem su fekkee saytaane la dafay daal di toog kon moo njëkk a def test boobu rinsir ko en même temps moo jël itam maanaam ci xalaatu boppam li daal yonent bi yóbbu ko ci waray waray xatum nu nawfal mu mu seetal ko ci xam-xam yooya xamal ko ne ko kii la doon dal ay maami yonentam ay bàyyi yonentam moo ko mu muy nubuwa loolu tam xalaat la am nga si seen xasawaat yi ngeen jàng nii ci xasawaat ci dawla al xulafa rasidin jigéen ñoo xamante ne ba ñu demee bay dem ca xare ba bañ leen bañ leen di jubal kenn ku dañoo waxtaan seen biir génn seeni musóor kenn ku nekk di ko yëngal mu mel ni drapeau ba leen noon ya séenee ñi nga xamante ne ñoo noon ak islam bañ leen séenee ñoom dañoo foog ne nouvelle attaque la dañoo daal di daw bàyyi fa seen góor ñañ doon xeexal loolu loolu xel la man euh, urimal xinaa rusi xel xija loolu mooy xaay dem képp koo xamante ne dañ la am am luñ la euh, luñ la perte la da nga am luñ foo xamante ne da nga fay bénéfice oo comme jigéen amul doole moo tax day am pexe pexe du ñàkk jërëjëf. jërëjëf oustaz jasakumullahu xayran mbokk mi dafay laaj ba tey mu ne ndax mën naa nekk góor di dund si lu dul mi ànd ak jigéen nee ndax mën naa nekk góor di dund sans jigéen daal. waa góor di dund sans jigéen xam nga lu ci jubla xañ na da bañ a takk soxna la bëgg a wax na bu dee loolu la bëgg a wax euh, bu dee loolu la bëgg a wax xañ na góor mën naa dund ndax ci lu dul mu am soxna ndax mën naa dund ci lu dul am soxna bu doon damay jubbanti laaj bi xañ na bu leen bu ngeen waxee waaw ma commencé tontu waaw waaw waaw léegi euh, góor buñ ko waxee mën naa dund sans mu am soxna waaw waaye dama naan déedéet waaw déedéet <laughs> dama naan waaw déedéet waaw waaw dama naan lu tax waaw lu tax ma ne waaw mooy bu fekkente ne yàlla dogal na moom mënta yor soxna day dund sans mu am soxna ndax mënu ko moom moom li ñuy doy soxna la mënul da caa tële bu boobaa moom xëy na lee danañ na góor la waaye am na lu fa manqué maanaam mënut yor kër dégg su mënee yor kër nag te yorul kër dañ koy delloo ci la addis ba waxan an nikaa u sunnati fa man raqiba an sunnati fa laysa minni dañ ko naa ak foo mën a bokk nag ak koo mën a doon mën a yor kër te yoroo kër yonent bi nee na bokkatoo ci ñoñam moom mooy seet nag ndax dund ci loola dund ci beru te mën a yor kër beru moo ko dàqal dund bokk ci ñooy yonent bi wala déet moom mooy seet maanaam denc soxna daal yonent bi nee na sama sunna la képp koo xamante ne bëgguloo ko bokk coo ci man yonent bi aleyhi salaatu wa bi mu génn àdduna juróom-ñeent soxna la fi bàyyi woon kon kooku am na lu mu doon jàngale yow nag comme li sëñ bi waxan keroog boo see ba mënoo yor ñeent yamal ci benn waaye boo yaafusee ba mënatoo yor benn nag ah waaw nag moom wax dëgg yàlla du ma xam nu ma lay mën a tuddee en tout cas daal dama lay génne ci ñoom yonent bi daal ndax yonent bi génn na la ci boppam ba noppi. jërëjëf oustaz kàddu yi am na solo kon mu mel ne yegg si nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi. dañuy dellu di ñaanalaat ustaas bu baax a baax suñu boroom dolli ko ak wér dolli ko kàttan waaye itam di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo doon topp jotaay bi di leen ñaanal suñu boroom gudd fan ak wér ak xam-xam bu bari te barkeel ak taw tawféex te suñu boroom nangul ñu jaamu yàlla yi barkeb Sëriñ Tuubaa di fàttali ne suñu beneen jotaay ñu ngi ko war a amal àjjuma ginnaaw suba incha allah ki ñu war a defal. waxtaan di al ustaas Balla Mbengue dañuy def thème bu am solo muy al xarakatu niswiya fil mujtamahat al islamiya kon daal ñu ngi wàcce foofu suñuy kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa